asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki jullit yi mbokki lislaam ji yépp di leen nuyu nuyoo bu sell muy nuyub lislaam di nuyoo bi nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko tànnal jullit ñi mu mel ni dañuy dellusi si sunu jotaayal yóbbulu ndaw ñi muy jataayal xam-xam waaye di jataayal fàttalikonte sunu bàyyee xel nag sunu jataay yi weesu ci jataayal yóbbalu ndaw ñi ñi ngi doon jàngale ci téere bi ñuy wax jawharun nafiis bunt bi jàngale lan mooy ngëneelal julli yi ak li aju ci julli ci ay ngëneel ak li ñu kon dafay mel ni dañuy dellu siwaat suñ jataay ngir yeggale lenn ci ngëneelal julli yi ak yi ñu sib ci biir julli moo tax mu waxoon ne wax xudda limeef na kon dafay mel daf koy yeggale ba tey moo tax mu ne wax na aydan ba tey ak duha ak ñaan baxda tasahudin ginnaaw taaya saanin wadiw ñaareel wanilta yàlla na la jox rusdan ak njub mu ne kon bokk na ci ngëneelal julli yi mooy ñaan ginnaaw boo taayaa ba pare mooy taayab nag bu ko waxee mooy taaya bu mujj rek ginnaaw boo taayaa taaya bu mujj ba pare sopp nañ foofee ngëneel la nga ñaan ñaan googu la ñuy wax ne man ngaa ñaan ci arab moo gën waaye boo ko mënul nag ci làkk woo ko wax baax na waaye daal barab la boo xam te ni ngëneel la boo taayaa taaya bu mujj ba nga xamee ne war ngaa sëlmal nga ñaan ci diggante boobee du la sëlmal kon diggante bu baax ci ñaan la wali ziyaadatin ak wala nga ne wayakuunu dana nekk at walla di a gudd minal ula ci bu njëkk ba yaafat yi yow aji xelu ja li ziyaadati duhaa ci dollentug ñaan mu nekkat na nga xam ne taaya bu mujj ba mooy gën a gudd ci taaya bu njëkk ba ndax taaya bu mujj ba kat ginnaaw boo defee ak taxiyaat ba mu jeex diñ ci teg ay julli ci yonente bi diñ ci teg ñaan kon bu boobaa taaya bu mujj ba mooy gën a gudd taaya bu njëkk ba ndax liñ ciy dolliwaat ginnaaw boo jàngee ataxiyaat ba mu jeex dolli yooyu nga ciy dolliwaat mooy tax mu gën a gudd taaya mu njëkk ba wa faddalu bokk na ci ngëneele tayaa mu naan ak nday jooru inda salaam fa sëlmal ba taxriiku naa ak sunug yëngal sababatan baaraamu sànnikaay te mat na te ak mat mu ne bokk na ci ngëneelal julli yi kat mooy booy sëlmal boo ne asalaamu aleykum nga mel ne ku ndeyjoor mooy nga gersuwaale sa wetuk ndeyjoor gersu gu yam goo xam nii ki nekk sa ginnaaw di julli dina gis sa lexub ndeyjoor ba gersu bu yam lay doon loolu ngëneel la ci julli ak yëngal gi ñuy yëngal sunu baaraamu sànnikaay bu ñu demee ba toll ci taaya booy taaya taaya wu jëkk ak taaya wu mujj yëngal googu nga yëngal sa baaraamu sànnikaay bi nga xam ne da koy jëlee ci ndeyjoor andi ko ci càmmoñ di ko yëngal loolee ci ngëneel julli ci la bokk waaye nag bu ñu seetee ne bu fekkee da toog ci diggante bi nga sujjootee ba toog diggante bu gàtt boobu moom kenn du fa yëngal ab baaraam man ngaa jël sa ñaari loxo teg ko sa ñaari lupp tàllal ko nga xam ne doo ko bank waaye bu ñu yeggee ci taayo bu njëkk ak taayo bu mujj nag ngay yëngal sa baaraamu sànnikaay di ko yëlee ndeyjoor di indi càmmoñ kon loolu ci nga nee la bokk donte sax dañ lay jiite nga xam ne yow imaam moo lay jiite boo yëngal ba nga xam te ni jeexal nga sa taaya te imaam pareegu teewul da ngay continuer di yëngal rek ba keroog. ma imaam di wax asalaamualeykum wa karihu sib nañ waxu fanaa sunu taxaw bi rijli ci tànk waaxidatin wadi wenn fii xayri tuwalil feeni ci lu dut guddal jëf la wa sib nañu ixtiraanana wa karihu sib nañ ixraanana sunu taqale wala nga sunu lënkale rijji lay ni ñaari tànk ya wa jaxala ak def ga fil fam mi ci gémmiñ ka dirhamay ni niki ñaari dërëm aw dirhamin wala benn dërëm wa xayrihi wala lu ko lul wala ittifaati ak gestu wa hakaza niki ni taxmiidu aynin gëm mi bët fi salaata ci julli illaa li usrin ndare ngànt misla riixin kom ngaraw aw xaraam wala lu xaraam fa innahu naka moom yuraam def na ko sàkku ayna isin joojale waxtu wala joojale jamono minhu ca moom mu ne tamit sit nañ kiy julli di taxawu benn tànk julli jël sa benn tànk taxawee ko loolu sit nañ ko ci biir julli kon day mel ni génn jeexal na ngëneel yi kon jeexal na ngëneel julli yi mi ngi dugg ci li ñu sib ci julli moo tax mu tàmbali ne wa karihu kon sib nañ kuy julli muy taxaw benn tànk ci biir julli gi lu dul daa fekk mu julli ba julli ga yàgg ba mu sonn mu taxawee benn tànk boobaa moom loolu kenn sibu ko sib nañ ba tey kiy julli mu lënkale ñaari tànkam maanaam mu kebele ñaari tànkam ba mel ni kuñ jéng ay tànk tànkam loolu sib nañ ko kon li ñu sibul mooy bu dee góor mu bañ a kebele ñaari tànkee xaw koo ubbi tuuti ubbi gu yam nag lañ wax waxuñu nga ubbi ko ba dootoo mën a taxawati déedéet da nga koy ubbi ubbi gu yam ci ni nga xamee ne booy dox mënoo kebele sa ñaari tànk noonee nga koy fexee def bañ koo kebele ba mu sës kon sib nañ ngay kebele sa ñaari tànk ci biir julli sib nañ ba tey ngay def ci sa gémmiñ lu mel ni ñaari dërëm wala lu mel ni ab dërëm walla lu toll lu mel ni ñooñu rek moo xam danga julli nga log dara sa gémmiñ moo xam ni miskit la wala lu mën di doon rek sib nañ ko waaye sax sib gi mu ngi yam ci nga log loo xam te ni bariwut waaye bis boo defee ba lokk loo xam te ni sa gémmiñ gi booy wax booy jàng alxuraan ji ngay jàng ci biir julli gi doo mën a wax xaraf ya nanga ko war a waxee boobaa day yàq julli ga sib na ñit sib nañu ci biir julli it ngay gestu waaw ngay nekk fi di gestu bu nekk loolu lañ koo sib bu ñu nee gestu nag mooy gestu yam yooyu nga xam ne dangay gestu xool sa tuuti xool sa wetu tuuti yooyu lañ sib waaye bu dee gestu nag ba tourné ci ginnaaw nag boobaa moom day yàq julli kon sib nañ ngay julli di gestu wala ngay julli di gëmm say bët lu dul danga am ngànt ngànt la mooy lu mel ni muy ngelaw nga gëmm say bët ndax ngelaw la walla nga gis lu xaraam nga gëmm ba loolu jàll wala nga gëmm ba xooloo ko ci biir julli gi mais loolu moom lu baax la fexe ba moytu ko moytu ko ci gëmm say bët mais loolu moom amul benn luñ ci sib sib nag buñ ne lii sib nañ ko mooy loo xam te nii boo ko bàyyee am nga tiyaaba boo ko defee tamit du du am baakaar waaye nag boo ko bàyyee ba defoo ko nañ la dundal tiyaaba wa karihu sib nañu xaw xalan wax laa xawla wala xuwata wa basmala ak wax bismillahi rahmaani rahim fil fardi ci julli farata laa fi nafli déet muy nekk ci naafila misla xasba la comme ahonge billahi mina seytaan rajim bu dee ci ngir imam malik sib nañ ngay julli julli farata di wax laa xawla wala xuwata wala ngay sax ngay wax ahonge billahi mina ci julli waa moom may nañ la ko man nga ko wax wa kullu ak lépp loo xam te ni yu waswisu dana jax-jaxal a sax sa jëmm ladaa salaatihi fa julli ga fasaaka loolee makruhun luñ luñ sib la badaa feeñ fii jaybihi ci poosam aw zahrihi wala ci ginnaawam aw fii imaam wala ci kanamam aw fii janbihi wala ci ay wàllam ci ay wetam kama nassa nekk mu ko yaxalee imaam imaam ba bihi ci moom mu ne sib nañ ba tey nit ki buy julli mu yor lenn wala mu jege dara loo xam ne ni day jax-jaxal ab xolam moo xam lu mu denc ci poosam la sib nañ ko man ngaa denc dara sa poos mu yëngatu di yàq sa julli wala muy nekk loo xam danga koy bàyyi xel sa biir julli ba muy yàq sa julli loolu sib nañ ko wala mu nekk sa ginnaaw wala mu nekk sa kanam wala sax mu nekk ci sa weddi nga xam ne dalaa jege nga xam ne booy julli day jax-jaxal sa xol wala mu nekk fu mën di nekk rek jege la rek loolu lu ñu sib la kon ni ñoo bëgg booy julli lépp loo xam ne day jax-jaxal sab xol rek nga sori ko <coughs> loolu moom ganaar lu jara bàyyi xel la waaw ndax bàyyi ni ñuy julli di yor ay portable rek mu yàq sa julli jax-jaxal sa xol jax-jaxal yeneen xol yi jullit yëpp loolu kon lu jara wattandiku la ak bépp mbir moom jege lu mel noonu mu ne wakkari hu sib nañ fekk al fikra xalaat la daa salaati fa julli fii kulli amrin dunyawiyan ci bépp mbir moo xam te ni mbirum àdduna la aate dikki na ko fa kullu ma nga ne faj tanib na nga wattandiku kullu lépp loo xam te ni yaa rajul yow waa ji yëf xelu dana soxla woo anil xusuuxi warif ragal yàlla la daa salaati ka fa julli ga mu ne sib nañ ngay xalaat ci biir julli gi mbirum àdduna benn mbirum àdduna sit nañ nga koy xalaat ci biir julli gi kon booy julli dañuy bëgg nga fexe ba lépp looy xalaat mu nekk lu jëm ci yàlla loolay delloo si ci yàlla sa borom kon waroo xalaat benn xalaat boo xam te ni xalaatu àdduna la ndax xalaatu àdduna yooyu day tax sa tiyaaba ci biir julli wàññeeku du yàq julli ga moom waaye dina wàññi sa tiyaaba ci biir julli ga fa yàqee julli gi mooy ngay xilaat ci mbirum àdduna ba nga xamee ne xamatoo julli gi foo toll xamatoo sax liñ ci dolli noo koy defaree kon boobaa moom day yàq julli ga da ngay dagg julli ga tàmbaliwaat waaye bu dee da ngay xilaat tuuti dellu siwaat xilaat tuuti dellu siwaat te yàqalu la ci julli gi dara yaa ngi koy julli na mu waree wala boo juumee di nga ko defar na mu waree boobaa moom tiyaaba julli ja mooy waa mooy wàññeeku waaye nag julli ga yàquwut mu ne moo tax ma na nga wattandiku lépp loo xam te nii danga koy jëfan jëf ci biir julli lu dul ak ragal yàlla nanga ko wattandiku kon daal kuy julli war na waajal boppam ci am xelam ci ay jëfam ay xalaatam ba nga xamee ne bu xasee ne allahu akbar ci julli gi xelam lépp ci yàlla lay dem ak lu koy jëmale ci sunu borom waaye dootu demati ci lenn loo xamante ni ci mbirum àdduna la kon loolu jullit bu ne war na di ko bàyyi xel kon foofu fii la yamale nga neelal julli yi fii tamit fii la li ñu sib ci julli fii la ko yemale kon jotaay bi ni ñëw mu indi kon bari ci xalaat ak la aju ci biir julli gi kon dafa mel ni fii la bind bunt bi am ñu ngi ñaan suñu borom may ñu tal ak ak fekke may ñu dégg ak ak topp jéggal ñu bàkkaar yi defal ñu yërmandeem ñuy nuyu mbokk yi nga xam te ni dañuy teewlu jataay bi yëpp di leen jox seen wàccuwaay bu baax te di leen ñaanal jàmm ak yërmande yàlla di leen jox dig daje ci beneen jotaay incha allah rabbi ñu ànd ko ak yéen in uridu ila lislaaha mastataxtu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bil